salaamaaleykum euh, suñu mbokk yi téléspectateurs yi ñoo ngi am mbégte ak contentement di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen émission ëttu ndaanaan yi à la présentation Samba Coumba borom Thiès comme niñ koy defee tous les quinze jours ci seen télévision muy Prestige TV waaye seen site bi nga xam ne àddina bi yëpp ràññee nañ ko muy le site Prestige muy www point prestige thiès point com tey nag ñu am mbégte wax naa leen ni ëttu ndaanaan rek lay mën a demee euh, ñu dalal ko. Bé passé yalla dogal ko ñu jéemaat une deuxième fois wul tay la ko yalla dogal tubab di faral di wax nan l'homme propose Dieu dispose euh, deux fois de suite amul tay la ko yalla dogal mu tombé ak son anniversaire mais aussi tombé ak des hommes yo xamné ragné nañ leen ci sen liguey muy des techniciens de valeur des techniciens émérites des caméramans de charme des caméramans de prestige nous nous. ak ñun gunge Quand ci mbir mi kon dafa mel ni buy yàq ndexete wala sax ñu de yàlla buy defar day mel ku yàq wala nga ni yàlla bu été na day kon la qui a euh, muy kenn Sénégal ñu des invités Cette émission bi ñu dara ont Matar Mbeng Matar Mbeng di un digne fils de Thiès Tubab di faral di wax nan wala wolof Nan, sax jomay tukki waye fulla nibisi. ñibisi mu nekkon bitim rew ñibisi ties ñibisi Sénégal investiru di jappalé jeunesse bi tay mom lañu une délégation kan la andal suñu maître suñu maître ndax moñu tété suñu maître ndax moñu jangal muy elage Michael Mbaye nekkon président de la fédération nationale du théâtre populaire et de la musique Lolu yag na c'est des années man na wax ni mom moñu jangal ñun ñoo jangal ndaw kon tey bu ñëwee ànd ak Matar Mbeng dañ ciy am mbégte ànd ak Madoumbe Cissé dañ ciy am mbégte waaye ma gis à côté Zal Sow moom i tamit di suñu xarit

émission bi waaye ay ndaanaal ñëw seetaan si ko ñu tuddee ko aussi ay parrains yoo xam ne ay ndaanaan li kon ndaanaan ci biir ndaanaan lépp war a mën a dox noonu rek lay mën a demee Ass Mbaye asalaamaaleykum Ass Mbaye nuyu naa la. Euh, maaleykum salaam Samba Ndiaye. ginnaaw bi ma la fayee sa nuyoo maa ngi gërëm képp koo xamante ni teew nga fi di beral nuyoo ki nga xamante ni mooy Pape Doumbouya nga xamante ni moom. doomu Cees la boo xamante ni lii mu def tey investissement bi mu def fii tey ji bon ñu bari waroon na leen mais defuñu ko kon tey bu ko yàlla jaarale ci loxoom lu mel nii boo amee bala ñoo def dara laaj na ñu sant ko bu baax di ko gërëm. kon sant kon As Mbaye sant boroom kër gi muy Pape Doumbia. di directeur u prestige jël lii def ko ci dëkk bi jël ay xale ñoom ñëpp fa tabarakal la jox leen teraanga di leen jàppale di leen dimbali loolu kilifa bu ko defee war nañ ko delloo njukkal As namoon nañ la ci lan ar bi rek parce que ma ngi fi Thiès ma ngi Mbour di gërëm aussi ñi nga xamanteni ñom la andal muy Zal mi parce que 7 ans ma ngi liggéey ak mom ci hôtel yi nga xamanteni bon bi may dem fofu dañ ma jëlon comme mbalaxmaan mais fa laa ba jang fa musique variété mhm. ba nga xamanteni gis na ci suma liggéey benen yokuté bo xamanteni bu wuté na ak bu njëkk ba mhm. donc kon loolu mo waral tay ji suñu tay ji suñu ñëw fi mhm. di la gërëm tamit yow parce que ku ku ku gërëmul da ngay xarab mm-hmm. parce que ci yow sa tabe mm-hmm. sa sa laabiir ah sa lépp daal lépp loo xamante ni rek sama Ndiaye man bu ma waxee sax maanaam sama xol moo fees pour ma wax ndax yow bon nekk nga koo xamante ni yàlla def na télévision yu bari soxla na mais yow da nga ni man cees du fi nekk may dem feneen yow ku mel ni yow ku mel ni Gueye Teranga amuñu seen fay ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoo fi nekk nekk ay caméraman kon donc ñun ñu gërëm ku lim da ngay alors As Sénégal adina bi namon nañ la ngay ñew tay and ak ce groupe muy le kadior groupe ngeen ande. ñu xam la ci ak Super Royal am sax ñu naan fofu nga nek ñi As moman man seka moman As les les gars yi xam nga rek Sénégal non la mëna démé toujours c'est comme ça il faut gagner une indi alors nga nek fo ci musique moderne bi tay nga ci musique traditionnelle alaaji njaga mbay yàlla na ko yëroo yàlla yërëm te xare ko daana wax naan du bu def musique moderne ànd ceeg yu suma jigéen danaana wax naan du wét fu ma nekk damaa ñëw wéttali si ñi nga xam ne war nañ maa mën a fekk si kon tey yaa ngi ci musique traditionnelle fas yéene waxtaan ak Sénégal waaye bala ñuy dem El Hadj Mikayel Mbaye dañu koy jaare ndax doomam di suñu rakk muy Ablaye Mbaye yàlla def ni li gën jël ko euh, El Hadj Mikayel fa tabaarakalla ñu ngi koy wax sigil ni gaale loolu ñu koy jaal dañ koy jaale suñu bopp ndax Michael kenn la koo xam ne ñun ñëpp moo ñu ñun yar Michael théâtre fii ci Thiès bu ñu demee ba Sénégal gépp d'accord ci théâtre ne Thiès la ñii ñoo ko samp ci dëkk bi muy elage Michael mbay muy Yaarax Moussa mbay yàlla na ko ko sa xel dem ci ñoom Pape Jean sa xel dem ci ñoom monsieur Diagne nekkoon prof de français à l'école etc. Etc. et cetera ay ñoom Maguette euh, Maguette euh, je crois que c'est Maguette Fall ah Maguette Thiam Maguette Thiam donc moom mu ngi dëkk booru leen moom mu ngi fii donc ñooñu ñoo ŋànk théâtre bi téye koon ba tey fa tabaaraka la mu continuer dem ñu teg ko suñuy loxo ñun tam ñu jox ko suñuy rak ñoom itamit wax dëgg yàlla ñu ngi doxal doxalin bu rafet kon tey Sénégal namm na la gëj nañ laa dégg as yaa ngi Kajoor Kajoor nag yàgg naa doy war Kajoor histoire la boo ne Kajoor sa xel dem ci indépendance du Kajoor boo ne kajoor sa dem ci la sa xel dem ci Lat Joor ngone Latir Jóob mais boo ne sa xel dem ci damel amri ngone Sobel mi nga xamne mo indi indépendance du kayor as kadior ngok ya ngok adina bangi le setan damel amri ngone sabel, damel ma Samba tako damel mo xurey ja mang xurey ja daaw dem ma ja damel maa joor damel maa nesit deetelo baasin lat sukaaɓe wonne may sattendo woy jaalo sango ne joor major Ibra Fatim Sarr Meissa Sélé Kajoor yàgg nañu seni jambaro. jàmbaaro sango ne joor bu Sar ma Sele Ibra Kajoor yàgg na ñoog seeni jàmbaaro oh. waaw fanweeri damel ak ñaar ku ci nekk faal nga santoon damel amari ngoone sabel damel ma samba tàkko damel ma xurija bang xuija taw demba xuija tamil ma joor tamil ma nesi te jelo basin la tuko be ngone may sa te ndiwi dil ma way pour Mamour Fall borom Daaru Fall ma way la yela yela yela yela

yeah, papa Dumbuya borom prestige dinaa la woy dinaa la woy dafay xam li moom xam li société bi moom xam lu yoonam nekkul borom Thiès prestige Papa Doumbouya man dinaa la way dinaa la way la way doomu ndey Samba Ndiaye doomu ndey Guèye ma ne jubal ba ne xocc say bañ dangal doomi jaamur ku ko yàq dang ko jurul papa dumbuya Samba Njaay nañu bàyyi jumo diina ji di benn borom dina ma ca penkook borom dina ma ca sawu sen badia ben la fa yalla mam bamba tuba mamu donga ti waawoon mam li mamu laayo sénégal gi bu ko ken tal senegal sunu gal alaaji njaga mbay daan wax naan waaye ci bis bi kenn du ko faat yàlla rek muñ dafa jël jur gi jox nu ku tukki war jox nu géej gi jën yi du jeex àll bépp naat suju àndaar dëkk bari ko jàngal xuraan soo ci ñu bal xeet Mikaayil Mikaayilo oh, Mbay doomu ne Matar Mbengue Mboor sal sow Saliou Saliou nit ku baax dafay xam li mu moom xam li société bi moom Samba Ndiaye xam lu yoonam nekkuloo way le waaw teranga domun ndey bàcce ngi Samba Njaay yela yela yela yendoo di la waxtaane doo fa ñaawe ma yendoo di loolu fu ma yendoo di la waxtaan doo fa ñaawe ma yedloo bi la waxtaane doo fa jaayee ma tar dégg woor doomu na yi Mikaayil Mbay fu ma yendoo waxtaane doom ndeysaan yaram daw na yaakaar ni ku deglu sa introduction wala sa entrée en matière am mbégte way nga kadior deug la as mbay ndanan nga kenn warantetu ko as ah, est-ce man nañu xam jamono ji ci lan nga nek ci jamono ji waaw jamono ji nak man ak Saliou ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci hôtel bi feulé hmm. Sali hmm.

te amna na jamono yoo xamante ne tamit boo ko nekkee ak nit ki tamit ba benn moment yow tamit li li li sama góor gi doon wax rek. Mhm. bon ñaari kuy mënuñu nekk ci benn mbal. mun mhm. ñu naan ci benn mbal. Mhm. bien que nag terewul nag ñoo man dem jouer ji fenn. Secka dina ma woo yenn saa man tamit ma soxla ko mu ñëw. waaye nag pour bokk scène bi nag wax wu ko man wu mais Asma yi yaakaar naa ni c'est pas la première fois nga bàyyi scène bi euh, ngeen taxali o oh, non c'est que loolu dañ doon dem ñun man ak moom ci benn euh, mbir boo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokkoon. Hmm. dafa am loo xamante ni ba léegi bàyyante wuñu de. Hmm. mais dafa yenn saa yi Cees day soxla ñun ñëpp ñu dajaloo. ok mais bu bu loolu ci USA tamit bon musique bi ak football bi dañoo xaw a yem léegi. ok maanaam euh, fii laa bokk boo sax ko noonu loolu dafa amatul léegi dafa nekk loo xamante ni maanaam affaire professionnelle la ñuy dox. kon daal ci gàttal as. mën na ma soxla mën naa ko soxla waaye nag du tere tamit. kon daal kon di ngay gérer sa yëfu bopp. ok ok kon daal mën nañoo wax ni as fi mu ne ber na daara ji nga yor nu mu tudd. Kajoor band la man ak Saliou nii ñun ñooy ñooy génn. donc ñu xamandoo ni As Mbaye ak le Kajoor band loolu moo xew ci jamono mu ngi ci ànd ak Zal Sow di liggéey muy lu bees tàq ak équipe bi nga xam ne moom la àndal. yaakaar naa ni loolu leer na As musique bi ngay def danga ko doon wala da nga ko jàng. waaw man mën naa wax ni daal mënuma wax fan laa tàmbalee woy mais mën naa ni je suis né ok parce que sama bàjjen moom ko nett li mu ni man bi ma nekkee xale dama daan fooyee taal leen làmp yee ndeysaan. Mhm. Ablaye njaay cosaan. Mhm. man boobu temps xaw ma woon lan la sax mais dama. taal leen lamp yi ndeysaan ma xool gàmm bi dafa niroog Ablaye Ndiaye da ngeen a bokk ñëwal ma xool essayé ko. taal leen lamp yee ndeysaan. gone yi ndaar ndakaaro. tal leen lampo yee ndeysaan albiyaana dañuy xandaaloo tal leen lampo ndeysaan. dégg naa. ok waaw bi ma nekkee xale lool laa nii nga daan waaw ok ndeysaan ndeysaan kooku woyu Ablaye Ndiaye cosaan la ñu ngi koy nuyu de passage Ablaye Ndiaye cosaan di ko rendre un vibrant hommage. Mhm. donc moom nga daan fooyee. moom laa daan fooyee daal. ok mais bi ma màggee sama grand frère bi moom da doon woy tabala. ok Sega Mbaye ñu bari xam nañ ko. Mhm. après ci la ñoom Grok. jamono yooyu sax euh, Mikaël Mbaye mii. Hmm? mi mi fi ñëw tey jii. Hmm? man miinu ma ko woon waaye dama daan dégg turam trop ci hmm? Gora Mbaye ak ñoom Jacques Ndem. booba moom moo nekkoon président de la fédération. du théâtre populaire et de la musique. am na yu bari yo xam ne daf ko daan organiser Thiès. wallaay mais boobu temps bon nekkoon sama kanam mooy mag ñi ñoo nekkoon sama kanam ñoom Gora. xam nga ne ñoom Jams Gadiaga. ah Mampate Gadiaga. Seka Albouri Mbaye. bon man boobu temps maa ngi nekk. derrière quoi. ok ma sax ci ok euh, mesdames mesdemoiselles et messieurs je rappelle tout simplement que y a ngi en direct sur Facebook qui c'est une émission ëttu animé par euh, Samba Ndiaye mais aussi euh, sur euh, li nga xam YouTube ak seen télévision Prestige ma invité gan gu mag muy As Mbaye ànd ak di groupe le Kajoor group andak ak As Mbaye une ci émission bu mag bi suñu parrain mu ni toog muy Matar Mbeng ñu ngi koy delloo njukkal bu baax a baax mu ak Michael Mbaye andak ak Manoumbe Cissé mais aussi Zal Sow mungifi ngi ak d'autres invités yoo xam c'est des invités de marque donc As yaakaar naa ni sa tëboor a jékki-jékki ñëw dugg euh, fi nga xam moy euh, Royal Band. non bi may avant may nek Royal Band fay amone ben orchestre bu nekkone fële carrière ñu koy wax Le Soleil. Le Soleil je me rappelle. y'avait Kalis ndjay mm-hmm. bon après c'était en 82. Mm-hmm. après bobu la bobu temps dañ ma bëggone sax ma dem armée. ok. mais loolu moo yàq affaire bi sama grand frère dafa ma doon bëgg a yóbbu armée ma daw. ok ok alors tegal sa baaraam foofu xam nga lu ñuy waraaw dañuy waxtaan def musique dafa doon doy waar bu ñu naree topp affaire day xam alors deuxième morceau kan nga ko kan ko jagleel. sa parrain Matar deuxième morceau bi moom Matar Mbeng moo ko moom. ndeysaan. Euh, ak ay xaritam. Mhm. Mandumbe. Mhm. Cissé parce que mon ami maa ngi daan dégg turam bu baax ci gorom bay quoi. Mm-hmm, ndeysaan jamono yooyu quoi. ok donc way euh, allez-y allez-y ak képp ko xamante rek. and mm-hmm. nga ak mom ñëw fi tay di magalel ko bisan bi. voilà mbokki téléspectateurs yi euh, seen son deuxième morceau mom As Mbaye mu ko may son parrain Matar Mbeng euh, mu ngi and ak El Hadj Mikaël Mbaye ak Mandoumbe Cissé donc morceau bi ñom ñoko mom As bismillah. Furiyo yaddaake fu ma yendoo di la waxtaane du ñaawe yaddaake fu ma yendoo di la waxtaane du ñaawe Furiyo Mbàkke waaw ma yendoo di la waxtaane doo fa ñaawe waaw yeddaaki far yeddaaki fu ma yendoo di la waxtaane doo fa ñaawe ñaaru góor yi takk nañu leen ku mën na war war naaru góor yi takk nañu leen mën na war war ku mënul te nga toog bu njab yàggee léegi léegi léegi nga war feeñ Matar Mbeng Mor ma numbe Cissé Cissé ngaari njar meew Cissé Cissé ngaari njar meew doomu ndeyi Mikaayil Mbay sëriñ Saaliw guru xadeengi Cherifaati Gey yaay ma yaan lañuy woye yaayam mbeg mboor yaay ma cuur lañuy woye ci Cees kaay boo demee ba bitim réew fàttewuloon yaay fàttewuloon baay fàttewuloon xarit yi lay xaar mandumbe doomu ndey mandumbe ge mataaro mataare fàttewuloo woon xarit yi lay xaar fàttewuloo woon say dëkkandoo mbeng mbooro frio ya daake fari ya yendoo di la waxtaane doo fa ñaawe waaw ya daake mbooro fu ma yendoo di waxtu Ahmadu fa ñaay yoo yaddaake fari yaddaake waaw doomu dey man dumbe siise doo fi ñaawe waaw yaddaake moo yaddaake ay sëriñ Saaliw fu ma yendoo di waxtu ne doo fa ñaay yoo yaddaake furiyata waaw góoru xadi cuun dina la way doo fi ñaawe waya daaki ay furaya daaki fu ma yandoo di waxtaane doo fa ñaawe cuun lañu waya yaayam Chérifati bay Sëriñ Saaliw Baay Moodu Mbeng la ñu woye baayam Frio ya daake beng Frio ya daake waaw ma yendoo di la waxtaane doo fa ñaawe doo fi as do fi ñaay mbooro do doo do doo fariyada ma yendoo di la waxtaan ne doo fay ñaan waye ma waye danki ma ma yendoo ma yendoo di la waxtaan doo fay di fay fu may di la waxtaan ne doo fa jaay man ma siise siise ngari njar meew yéen di la waxtaan man di doo fa ñaay ma tarbe nga mboor doomu ndey ma tumbe siise fu may yéen di la waxtaan doo fa ñaay Makhtar fu ma yendoo di la waxtaane doo fa ñaaw yaakaar naa ni loolu neex na euh, neex na dans la mesure où euh, sama xarit euh, Danfaxa moom itamit di kenn ci Makhtar Mbengue ba ko ne Makhtar la ñuy parrainé def ma ne Samba Ndiaye ma ne ko naam mu ne ma faaw ma ñëw ànd ak Matar ndax Matar sama goro bu baax la sama rakk la sama xarit la vraiment donc il faut ma ànd ak moom donc moom itamit daa faxa ñu ngi koy dalal bu baax a baax di ko jox wàcc waaye muy sama xarit muy koo xam ne maak moom ku dégg ba ceeg suba ak ngoon ñooy mu ne ma Matar daal sama rakk ju baax la buñ ko paree ne faaw ma ñëw euh, mu gis ma xam ni magam ñëw na kon moom itamit ñu ngi koy jox wàcc waayam bu baax a baax As alors euh, musique sénégalaise nam nga ko gisee As jamono ji mu. xanaa metti lu tax. waaw man gis naa ne musicien yi bon kuy xaar kuy xaar ku la dimbali do do do do do do kii la doo ci gaaw a génn. pourquoi. bon man xawma lan la quoi. est-ce que yow manifester nga pour ñu dimbali la. non bon plusieurs fois bari na. ci kan ci ban côté est-ce que ci côté état la wala ci côté musicien yu mag yi wala ci côté personnalité yi. bon état moom moom ñu ngi def li ñu mën mais parce que temps yi moom vraiment au niveau du BSDA xaw na par rapport ak bu par rapport ak bu BSDA dafa melni metti ngi sa ji. <laughs> Euh, <laughs> <laughs> as as est-ce que dem ba non nga ma doxuma dem instant bon xam nga ci affaire yi rek. waaw son premier album ak euh, Royal Band. Il y avait instant euh, droit collectif moo

ma doxe ma après biñ ma ne amoo fi dara dama mujj doxe foofu. non euh, kii port fi fi fi ne bees dama laa doxe ba ba. ba tableau tuyaawoon keur souleyman fay mo mujj may paas. souleyman fay mo la mujj may paas. <laughs> bon ñu ngi koy nuyu grand souleyman fay ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. vraiment donc c'est comme ça mais après hein. dogguma la mais nee dafa reetaan quoi parce que nee mo man doxna États-Unis Canada. après man ma fat wa da ngay fàtte da ngay fàtte. daal bi ma mu ne ma dox États-Unis Canada. kooku moy Diego Diego ñu ngi lay nuyu. ndaanaan la momi itamit ñu koy nuyu. alors donc euh, ci walu état wax nga ko mais ci walu musicien yi je donne un exemple actuellement Youssou Ndour c'est la figure emblématique de la musique sénégalaise sénégalaise est-ce que mas nga def benn action jëmale ko ci moom parce que aussi as ndaanaan nga ku la déglu sa xel dem ci Abdoulaye Mboup ku la déglu sa xel dem ci Ndiaga Mbaye est-ce que mën nga def benn action jëmale ko ci moom ne ko grand dama bëgg nga jàppale ma wala nii ak naa. c'est li ñuy wax ni buur aayul dëgg aay mën naa ci profité sax pour waxaale ko moom. Mhm. parce que moom en personne. moom Youssou Ndour. naaw Samba Alar. Mhm. bii Seka woyen Samba Alar.

moy lolou dal, bon. kon batay tey bàyyeekoo quoi yaangi xaar. non actuellement man do parce que boy xaar. bon ok mais l'essentiel euh, yaangi dal daal à travers mon émission Eutou Ndanani yaa koy tàllal loxo moom euh, Youssou Ndour euh, di ko wax ni daal vraiment tàllal nga say loxo pour lu mu mën a mu jappalé la aussi lolou dang ko so dang koy soxla. parce que dafa am ben morceau Ablaye Mbow bu ma reprendre lolou moko moo ko ban morceau la ñoom parce que xamna naa ni dinañu seetaan moom Youssou ban morceau la.

ñu joué ko en. xam naa ne calculé ko mais defal ma ñu xool ñu xam exactement waaw. ay ni naa ay jooy ay ni naa gis nga na nga déglu way ba ngir nga xam la ni wax so bayee ba mu dee ngay soog a déglu naqar wa day gën a tiis ndax dootoo xamala tiiti mbay faal iri mbakke nooy keroog biñ fi bay ko le sen xam-xam dora saaw ci réew mi déglu leen ma ma way voilà donc je crois que li ku ko dégg sa xel dem ci Abdoulaye mbou il a raison Youssou Ndour vraiment de savourer cela parce que moom c'est un connaisseur c'est c'est pas un petit quelqu'un donc li mu apprécié ci yow c'est avec juste va raison donc ñu ngi koy talal loxo momi tamit euh, pour nu mu mën def rek ba nga gëna a ba nga am occasion togo mom je sais que bo togué mom moom dina la jappalé ci lu bëri bëri Ass tay euh, tey ëttu le euh, Prestige télévision du télé la télévision des euh, à sa tête le directeur général Mouy Pape Doumbia di doomi Thiès mais aussi Oubi espace bi pour permettre les hommes de culture ñu mën a euh, indi seen pàcc donc yaakaar naa ne boo dee ëttu ndaanaan yi woykat bi ndaanaan la fecckat bi ndaanaan la tëggkat bi ndaanaan la taalifkat bi ndaanaan la képp koo xam ne rek yaa ngi yëngu ci mbir yëngu ci ak professionnalisme yëngu ci euh, jommal ci nit ñi ndaanaan nga ci loolu alors ce euh, troisième morceau ban morceau lay doon kan nga ko jagle sama troisième morceau ba léegi maa ngi dellu rek di ko jagle directeur bi nga xamante ni moo nekk fii ak ki nga xamante ni rek mooy Matar ak Mandumbe euh, euh, ak euh, ñi fi nekk ñëpp boo limee da ngay juum. ayca c'est parti. woy ale woy ale Birame Ndiémé Kumba. woy ale woy ale Birame Ndiémé Kumba. woy ale woy ale Birame Ndiémé Kumba. woy ale woy ale Birame Ndiémé. kumba woy ale woy ale biram jeeme kumba woy ale woy ale biram jeeme kumba Mauritanie et Ross Ce qui construit de nos jours la frontière qui sépare la Mauritanie et le Sénégal. Dit lui un événement historique, les questions de Réveil sinon de revivre cette même époque, les morts avaient tendance à l'esclavage, c'est-à-dire à la captive de l'être. Au mardi, il s'infiltrait au niveau du Sénégal, dans un village wallon-wallon d'air. Ouais, jamais. ci Sénégal asalaamaaleykum euh, donc euh, xam naa ni tey am euh, honneur ak privilège ci suñu émission Otundanani. ñu invité Ass Mbaye le parrain di Matar Mbeng nga xamni kenn duko présenter ci Thiès and ak son ami Mandoumbe Cissé Waye ñu am gan waxna ko sank muy Elage Hadj Mbay. ñu ngi koy ñaanal Yalla Yalla may ko fan wu gudd bàyyi ko fi lu yàgg ñu fekkee ko ñun ñep. mu ñew nag tay and ki nga xamni moy Matar di bien que xatna amul jot mais dafa bàyyi léppam ñëw waaye nag bu fii te di un monument de la culture jàngal ñu rafet na bala muy dem ñu jël rek suñu micro jox ko ko mu am ay kàddu yu muy kati El Hadj Michael salaamaaleykum. Ah, maaleykum salaam Samba Ndiaye yow foo toog kuy homme de culture waratul wax parce que soo waxee ñu wax nañu dama ne la fu ma ma sa dégg nun suñu mission dafa jeex.

tu as raison. tu symbolises Thiès. yooyu icône lu ñu def dans le cadre de l'art suñu jaaree ci yow egsi nañu. su mu ñëwee fii nag tey. fam du tax. kii ñu def muy parrain bi. dafay sama doom. di sama di di partenaire. mon père. man nañ def ma nekk parrain émission bii tey le grand artiste Ass Mbaye war a animé tey ma ne ko lu ma jàppoon dinaa ko bàyyi ndax ma numbe dafay kenn ci moom amoon xew tey goroom jóge màkk tey jii waruñu fa fekk waaye fonk gu ñu fonk Matar am fu ñu teg Matar tax na ba ma numbe ne ma moom nañu bàyyi xew-xew bi suñ demee donc bu ñëw waaye balaa ñoo def tout nañ ànd maxtaar jëmmali maxtar ci parrain bi mu nekk tey fii ci journée bi loolu moo tax suma jataay fii ma ñëw bi ma ñëwee nag gën am sawarte fekk la fi ngay animé may jox mention spéciale ki nga xam ne ki mooy boroom kër gi jeune Doumbia kii yow képp kuy Thiès waa war na la jox sa njukkal parce que lii nga def ci Thiès indi nga raay ci taaral ties et c'est très important ñun missionnaire lañu képp ko xamné ki day indi luy avancer ties duñ mën dul encouragé la ñu lay encourager yalla na fi yalla yagal ce mission bi ngay def lepp lo ci sentu yalla nga gis lu wessu sa njort Ass Mbaye il faut faire bon chemin xalé la yaa ci aar bi di dundal aar bi kadior amal nañ da njukkal dañ taxaw fi inshallah defal la ben journée bo xamné bi sa ray lay nek ñu décorer la en tant que artiste au nom de toi inshallah allah kon nag merci merci jërëjëf merci Baye merci jërëjëf jërëjëf merci merci Khady Khady Faye Khady jërëjëf merci beaucoup Euh, jërëjëf euh, As yaakaar naa ni morceau bi neex na trop tabaarakalla macha allah euh, léegi nag damaa amoon ay série question questions yu ndaw rek yu ma bëggoon nga tontu ma ko tontu bu gàtt ah. ah ñu mën a dem alors As Mbaye musique ak politique lan moo ci sa xalaat. waaw man nag politique sama xam-xam bariwul vraiment lu dul xanaa yi sama carte rek su oto jotee ma xool ki ma neex ma otel. musique ak sport. bon bëgg naa sport parce que damay seetaan làmb damay damay seetaan basket. lan mooy sa sport préféré. basket basketball ok euh, musique avec religion Dîner musique avec religion bon je na parce que mu ni dara pas te ak mhm. li am importance boy def ben affaire sama gis-gis Bumu yak se dîner. comme ni ma se sama turandoo waxe mhm. ma aladi li rek mhm. ko li ni ni def ben mbotay mu ñaanalu ñu ñaanu collectif mu ni bis bu ngeen ko bis bu ngeen bàyyee li ma leen wax ngeen ngeen ngeen def ko ñu fukken dina yaq ok euh, musique ak jang da fo wara and hmm. waaw est-ce que yow euh, jang wa man nak wa jang na mais li ci ëpp sama jang, ma jangal sama bop autodidacte ya jang sa bop waaw alors. Euh, après ma def ma def candidat libre xam COP après. oui ok est-ce que Mangama nga tout direct euh, en français un tout petit peu hein? euh, vous êtes aujourd'hui dans votre émission invité de marque à Sabaï Oui. alors le public vous écoute qu'est-ce que quel est votre message à Sabaï à l'endroit du public. bon euh, c'est-à-dire. votre message à l'endroit du public le public qui vous regarde et les téléspectateurs Bon, il faut travailler, comme tout le monde. Essayer de travailler, bon, comme tout le monde. Voilà. Ok. Vraiment, il se débrouille, hein? machallah, hein. Essayer de travailler, essayer de travailler. Oui, essayer de travailler, travailler. Travailler, travailler. Essayer de travailler. Oui. <laughs> voilà. Donc, non, euh, là, à ce troisième, c'est bien le morceau qui est top. Quand Bon, ça me donne, bon maa ngi koy jagleel képp koo xamante ni rek papa nga wala nga nekk yaay daal. donc morceau bi sama doom la. waaw ok sama doom donc à l'hommage un hommage rendu aux enfants euh, ñu déglu ko bu baax a baax ndeysaan papa mooy woy doomam. yow sama doom. man mi sa baay xalaat naa la sóoraale naa la. yow sama doom man mi sa xalaat naa la sóoraale naa la Alioune Sot yoon wi dafa bari la xastal bari fa xastal yoon su jeexulee oh, waxu si jeex mbay daane boo juree sa doom mooy jiite mbooloo mi doom ni mu méttee ak ni mu neexee soo bëggee xam nu ma mel da ngay jooyloo sama doom yu ko yaasin saalata ko xaajaan moom gor gi ci ñi ngeen dem ba sey almanik yu ko fali bal mbanik borom tuba bu na madina la way ya khadija la ni wooye yaayam Xadi Njaay alburiid daali sama dawur Daawur moo noppal yaayam yaay ju baax moo noppal doomam Samba Njaay Matar mbeng doom ju baax moo noppal yaayam yaay ju baax moo noppal doomam doomu ndeyu Mandumbe Siise Siise nga di njar meew

fonk naa sama jigéen Mamour Ibrahima Fatma noppal doomam bu di baax moo noppal yaayam yaay ju baax mooy noppal doomam doom ju baax a baax a baax mooy noppal yaayam yaay booy doom mënu ko fay waay booy doom mënu ko fay ma ne xaale dafa war a yaru fonk ay waajuram yaayoo fay bay booyooy domunu ko fay man xaalel ba fa waara yaru fa kuy waajuram noppal doomu Matar Mbengue doom ju baax moo noppal yaayam yaay ju baax moo noppal doomam doom ju baax a baax a baax mooy noppal yaayam doom ju baax moo noppal yaayam yaay ju baax a baax moo noppal doomam doom ju baax yaay bu baax a baax a baax mooy noppal doomam extraordinaire encore une fois Asmaï dans ses œuvres Yakarnani, a Carnani vraiment li ma invité le vraiment répondre à cette attente là Ass Mbaye jamono yi tey ku la le fan la la manafek. bon comment ça le monde na mën Zalmi Salut. sa euh, Saliou. Saliou euh, Zal ah. numéro lañ ko mën 77. 423 77 423. 99.

Euh, vraiment ñu ngi am mbégte contentement di le remercier bu baax a baax euh, di wax ni content nañu tay la ko yalla dogal japp nañ ko une fois wul yalla la neex japp ko une deuxième fois sottiwul yàlla la neex mais tay mo neexone yalla alhamdoulillah rabbil alamin ñu sant yalla bu baax a baax tey nag mu tombeek sa anniversaire xali bu naa bala muy dem ñu woyal ko joyeux anniversaire parce que tay mo anniversaire c'est important ma rappelle, mesdames mesdames et messieurs qui euh, c'est une télévision prestige que c'est une émission taille, cadreur Malik Laye Miriam Myriam Diallo et Pape Sow régie Ndiaye Dieye du côté de Facebook qui n'a pas publié publier, moi et Modou Aïchaka et publier en direct sur Facebook donc l'image est à vous di rendez-vous dans 15 jours Qui est une émission au Ndanane ak un invité Asmaï tey de tombé ak anniversaire Moi, je termine pour groupe bi souhaité ko joyeux anniversaire Khady man nga ko souhaité encore encore encore encore xari yora as baay happy birthday to you happy birthday as joyeux anniversaire joyeux anniversaire as happy birthday to you as baay asmay asmay du la lee du la ba say may di baawaan ku la lekk dee na la